Sall la dernière fois dama invité Thierno Alassane Sall le président de la République des des, des valeur xam nga moom il est passé euh, à l'ARTP euh, bi Macky Sall di doog a ñëw ci nguur bi euh, mu soulever une affaire boo xam ne man mosuma ci bàyyi xel euh, en disant que la fonction de directeur général de l'ARTP dafa incompatible euh, avec euh, un poste un poste électif alors euh, ça a soulevé ma ma ma ma curiosité ma dem euh, xool euh, la loi qui encadre la nomination le fonctionnement euh, du DG de de de de, de l'ARTP en son article 239 et de l'article 239 dit que la qualité de directeur général est incompatible avec quelque autre fonction rémunérée ou non tout mandat électif national ou local toute fonction gouvernementale ainsi que toute détention directe ou indirecte d'intérêt dans une ou plusieurs entreprises des secteurs régulés le directeur général ne peut avoir une relation commerciale avec l'autorité de régulation vous avez été ministre aujourd'hui vous êtes maire directeur général de la, RTP euh, le poste de maire est incompatible avec la fonction de de de, de directeur de l'ARTP alors pourquoi ñu ñu gëmm ci ci loolu pourquoi ngay vivre avec cette incompatibilité merci Maïmouna euh, je voudrais d'abord balaa may dugg ci question boobu euh, fàttali euh, que j'ai été nommé à la l'ARTP en 2014 en 2014 d'abord en 2014 d'abord 2014 euh, sous l'emprise euh, de l'ancienne loi euh, ma dawal cinq ans Thierno Alassane Sall ki ngay wax ne moom bokk na ci cadre bokkoon na ci cadre yi nga xam ne nekkoon nañu ak ñun fële ci APR balaa muy jël yoonu boppam damay fàttali aussi Thierno euh, c'est mon ancien à euh, l'ENIS, l'école nationale des ingénieurs de Saxe. En Tunisie en parce que c'est là-bas où vous en votre Tunisie euh, foofu laa foofu jaar. votre diplôme d'ingénieur. foofu laa jaar balaa may dem euh, à l'école supérieure à l'école multinationale à l'école de télécommunication bu Tunis. Euh, pour en revenir à la question d'incompatibilité c'est vrai vous avez lu l'article tout à l'heure mais damay. jàpp ñaar euh, Thierno bu fekkente ni euh, xam na lu yoon wax mu du toog ci ay plateau télé pour soulever des incompatibilités. attaqué na ko attaqué na décret bi devant la cour suprême. mais s'il a attaqué le décret mais il n'y a pas eu de suite. s'il a de la cour suprême moi la cour suprême par rapport à cette question là voilà muy ma ci sori bu fekkee ne attaqué na ko nee na loo attaqué na ko. est-ce que wax na la fii attaqué na de la cour suprême oui dem nañ euh, au niveau de la de la cour suprême. donc su attaqué su attaqué décret bi au niveau de la cour suprême moi j'ai pas grand-chose à ajouter donc il appartient à la cour suprême de euh, trancher la question. mais la question de l'incompatibilité elle demeure. parce que c'est avec la ma, la la réforme. de la ma, loi ma, en 2018 ah. le président de la République moom mooy nommé aux emplois civils et militaires. moi j'ai été nommé par décret il a attaqué le décret au niveau du conseil au niveau du de la cour suprême mais qu'il attende que la cour suprême donne son avis sur la question d'accord euh, loolu euh, ça concerne Thierno Alassane waaye xam nga dafa am euh, une nouvelle loi bu ñu adoptée en décembre 2018 oui. loi boobu moom moo spécifié en son article 239 et que la fonction de maire est incompatible parce que c'est une fonction élective avec la fonction de directeur général. Euh... Je, je, je, je, vous dis, Maimouna, que j'ai été nommé par décret présidentiel. présent là. Non, je, suis en train de vous dire que j'ai été nommé par décret présidentiel. Mmh. Il y a des voies de recours. Il, pense que euh, cette nomination, qu'il y a une incompatibilité par rapport à ma nomination. Il a saisi Euh, le le la la cour suprême c'est ce que vous venez de ma de ma. non man man pare naa ci Thierno. non non non non li mu li mu euh, par rapport à Thierno parce que Thierno ngay Thierno nga dugal. Mhm, non prétexte laa ko jël. non non non dama lay dama lay wax euh, parce que Thierno aussi jaaroon na ARTP te si je jette un coup d'œil en arrière Thierno n'a pas de de leçon à me donner par rapport au respect des textes et des règlements. Tcherno a été le premier à bafouer, à fouler aux pieds les textes communautaires. C'est-à-dire Pour des raisons populistes. C'est-à-dire euh, est venu, quand il est venu à la RTP, il a demandé à ce ah, qu'on. bi mu ñëwee à RTP euh, dafa wax ñu revoir son salaire. Or, il sait que le code de bi nga xam ne moom. dafa sukkandiku ci ay euh, directive wala ay ay ay ay ay ay texte communautaire dafa am lu mu ci wax et il a euh, lu wax jël jël texte yooyu non am na lu mu ci wax am na lu mu wax par rapport au salaire du DG de la RTP yooyu du ma ci du ci du ma ci xuus trop parce que euh, amul benn intéret may ñëwaat ci gestion am amul ma benn intéret mais li ma soxal mooy euh, fi ma nekk nii euh, je suis en train de fair un travail important pour le Sénégal et pour les Sénégalais fi nga xam ne et tout à l'heure euh, ci sa présentation da nga ne contre toute attente je suis revenu à la RTP je pense que terme boobu xamul lu tax nga dugal ko mm. parce que da nga ne contre toute attente ñi waat na ay xaaratu xaaruñ la fa woon en fait non en fait euh, je pense que euh, bépp cadre soit mu nekkoon ci gouvernement wala mu ñàkk nekk ci gouvernement fi ko président soxla foofu lay dem foofu la ko yóbbu amul kenn ku ñuy xaar fen la décision du président moom mooy jël moom mooy jël dogal wala jël décision yóbbu la fenn wala dindi la fenn wala teg la fenn fenn amul kenn ku ñuy séentu lu àndul ak li nga xam ne moom mooy décision président de la république pour mu def mais xam nga. li li am loolu bariwul lu muy am en fait. moo tax ma ne contre euh, si si si si si bariwul. si si si euh, non bariwul su su sous l'ère Macky Sall. vous trouverez difficilement des exemples de gens. je je peux qui ont géré quelque part qui sont partis et qui sont revenus là-bas. Euh, et toujours pour une euh, par une nomination euh, par décret. xam nga xam nga li ma lay wax léegi mooy euh, c'est le président de la République qui nomme moom mooy seet ki nga xam ne à un instant donné fan la ko gën a soxla de 2014 à 2019 soxla woon na ma ci euh, j'étais à la RTP fële ma ñëw à RTP pendant cinq ans après 2019 bi ñu gagné élection yi bu soxla ma au niveau du ministère bi ma fi jógee bi ma fa bi ma paree. mu soxla waat ma ARTP mu indiwaat ma ARTP mais mais mais xam nga da wax sànq ne Thierno dafa jël une décision populiste euh, wàññi salaire mais je me rappelle que c'est à l'époque cette décision populiste a été soutenue. je par je xaar euh, xaar par le président de la République. xam nga euh, soutenue par les Sénégalais mu nekkoon un élan populaire et d'ailleurs foofu la. Euh, foofu la Macky Sall jaar wàññi le traitement salarial de nombreux DG très puissants. Maymuna ah. Euh, sujet Thierno indiwuma fii. non mais yow yaa ko non dama indiwul fii parce que euh, euh, du ma nekk fii di wax ci gestion am. non pas ci gestion non attends attends attends non non attends conforme aux normes communautaires aux dispositions communautaires cette décision là n'est pas conforme quelle que soit euh, décision bi mu jël cette décision là elle elle elle elle elle elle était pour moi c'est une décision populiste parce que sukkandikuwul dafa jël texte yi teg ko fële jël décision boo xam ne pour des raisons populistes tey après après amoon na ay euh, euh, aban bàyyi naa sama salaire bàyyi naa sama carburant euh, lu bëri am na lu muy demee jarul ma koy teg fii ci table bi li am solo mooy Euh, man je suis à l'ARTP par la volonté du chef de l'État. waaw mais à l'époque nag da ngeen nekkoon ci populisme. ngeen naan la la patrie avant la la la euh, patrie euh, avant le parti. Maïmouna ne déjà yëpp nañu wàññi seen salaire. ngeen di neexal Sénégalais donc tu es d'accord que tu es d'accord que <laughs> tu es d'accord que loolu <laughs> populisme la. oui populisme lañ nekkoon. parce que non non d'accord nga wàññi salaire yi populisme xam nga dafa am fonction yoo xam ne nit buñ ko ci tegee. dafa am traitement salarial bu méngoo ak position ak ses responsabilités politiciens yi ñooy ñëw di jéem a dugal ci bopp nit ñi naan kii liñ koy fay dafa bari parce que kooku loolu ñu koy fay dañ ko koy fay pour protéger ko. exactement vous avez aujourd'hui affaire à des opérateurs. à un opérateur qui cent milliards. exactement de de bénéfices. exactement mais waruñ la mettre dans une situation boo xam ne di nga di nga faible. exact ba ba opérateur yooyu. di di di a am dara sa kaw loolu nag loolu nag la communauté bi xam. pour def de sorte que un DG de la RTP warul fayeeku lu gën a yées lu yées salaire u directeur bi nga xam ne moom mooy Euh, opérateur bi nga xam ne moom lay réguler. waaw muy DG ARTP muy DG euh, de grande boîte yu nekk fii euh, Sénélec Euh, Apix DG Port ce sont de grandes boîtes. yoo xam ne donc sur ce plan là dañ leen war a sur ce plan là vous êtes d'accord sur ce plan là vous êtes d'accord avec moi. sauf que à l'époque yéen ñëpp sur ce plan là. que dafa am ay textes yoo xam ne def ci teg tànk donc il est mal placé pour wax tey jii. le problème de respect des textes. sauf que il a été soutenu par par Macky Sall. waaw mais d'accord qu'il soit soutenu par le président ou qu'il soit pas soutenu <laughs> mais donc man pour man pour man. Thierno du moo may jox leçon par rapport ak li nga xam ne moom mooy les textes. waa léegi parce que moom moo njëkk moom moo njëkk jalgati textes yi.